alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma amma baadu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di dellusiwaat ci jataay yi nga xam ne ñu ngi ko doon bokk di am moo xam ci dégg diine la wala ci comme actu la ñu ci waxtaan ci suñu wàllu diine di ci waxtaan tamit ci xew-xewu jamono di xool yan jàngat lañ mën a am ci xew-xew yi nga xam ni ñu ngi jànkoonte ak moom ci jamono naka lañ mën a sukkandikoo ci suñu diine ba jàngat ko ba xam yan leçon lañ ci wala mën a jële ndax loolu lañu suñu diine sant mooy ne li nga xam ne day jaar ci ay jàll jàll wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bihi fuaadak ak laqad kaana fi qasasihim ibaratun li ulil albaab kon ñaari mbir yooyu moo ci nekk mooy jàng yi nga xamante ni ki daf koy jàng ci xew-xew yi jàll am na lu bëri lu ci nekk ci ay njëriñ yoo xam ne dafay dëgëralaat jullit bi ci ay position am conforté waat ko ci ay ngëm-ngëmam waaye tamit euh, mu jële ci ay leçon yoo xam ne dina ko jox expérience ba li nekk ci kanamam mu ko yenn njumte yi ci at yu weesu dafa am benn xew-xew bu rëy boo xam dafa xew ci àdduna bi muy le 11 septembre 2001 benn attentat bu rëy bu mag boo xamante ne dafa xew États-Unis attentat boobu fi mu nekk nii dellusiwaat na ba am ñaar fukki at ñu koy fàttaliku di ko waxtaanee ci plateau de télévision yi di def ay reportage di def ay documentaire di ci wax. mais boo seetloo bu baax di gis ne li ci ëpp ci wàllu émotionnel la gën a jëm wàllu yëg laal yëg-yëgu nit ki wàllu yërëmtalu wàllu jooy jooylu wàllu deedeelu mais pour teg dossier bi ci kaw table bi analyser ko xool jàngat question yi nga xamante ni ba léegi amaluñ ko ay tontu yoo xamante ni tontu yu mën a dal xel la ñu jàngat ko teg ko ci màndute déedéet loolu duñ ko def wala buñ koy def ak jeng da cay am mooy jël li nga xam ne mooy version officielle bi nga xam ne moom la seen commission boobu ñu nomee woon te commission bi balaa ñu koy nommé ndax attentat bi ni mu demee mooy dafa fekk jamono joo xam ni George Bush fils moom moo nekkoon ci régime bi moom moo nekkoon euh, président des États-Unis mu nekk originaire Texas ñooñu nga xamante ni bi ñooy les Texans ñooñu seen rapport ak li ñu tuddee l' état bu Amérique dafa yàgg dooy doy waar. ndax ñooñu ay nit lañ yoo xam ni saa bu ñu ñëwee ci nguur gi wala ñu jël occupé yenn postes yi nga xam ne ay post yu stratégique la aux États-Unis dañ daan naka jekk di faral di def ay mbir yoo xam ne doy waar la rey bi ñu rey Lincoln tudd nañ leen ci ci attentat bi nga xam def nañ ko rey ci Lincoln tudd nañ leen ci ci li nga xamante ne bi am na fitu def ko ci seen jaam yi jàppoon ne ñoo ko moom seen moomeel la seen àq la mu fexe ba nangu ko ci seeni loxo goreel leen ñu jàppante ci loolu jàppante bu tar ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo jëmoon ci nañ goreel jaam yi daldi am ndam ci ñoom xëy na yooyu nga xamante ne bi def na ko ci wàllu doxalin yoo xamante ne neexu leen tax nañu daal di koy faagaagal waaye boo xoolee tamit di nga gis ne ba léegi Kennedy dee rey bi ñu ko rey lu bari ci observateur dañuy wax ne seen loxo génnu si ndax sax fi nga xamante ne fa lañ ko reyee ci sud bi la ci suuf la Dallas la fa lañ defee attentat bi te préparer woon nañ ko di ko xaar te yi nga xamante ni bi enjeu yi nga xamante ne ak mbir yi nga xamante ne bi moom moo taxoon ñu faagaagal ko ay mbir yu bari la yenn yi ci wàllu koom-koom ak ci wàllu alal la jëm waaye yenn yi ci wàllu guerre ak euh, yenn conflit yoo xam ne bëggoon nañ États-Unis dugg ci kooku xaw cee gàttañlu moo xam ci seen diggante ak Cuba la wala seen diggante ak euh, Vietnam la waaye boo gisee tamit George Bush père bi mu ñëwee ba léegi gis nga yu bari ci la am seen intervention bi nga xam def nañ ko Nicaragua jàpp euh, Ortega jàpp président ba fa nekkoon te loolu li nit ñi xamul mooy ay opération la yoo xamante ni CIA ñoo ko doon piloté liñ ci doon def dafa jéggi dayoo ndax ñi nga xamante ni bi ñoo fa nekkoon di xeex ak euh, gouvernement ba fa nekk waaye ànd ak loolu américains yi dañ leen doon dem di leen jox ay armement di leen armée di jox ay ngànnaay di fa jël drogue drogue boobu ñu ñëw di ko indi aux États-Unis ngànnaay yooyu ñu doon jël doonuñ ko woon jëlee aux États-Unis dañ doon jël xaalis dem jënd ji ko sous-traité ko feneen jël ko ñëw yóbbu ko jox leen ko di leen armé pour bañ mu am trace def ay mbir yoo xamante ne ay doxalin yoo xam ne ñaaw la waaye ci jamonoom tamit la ñu naxee Saddam Hussein ba duggloo ko Koweït mu dugg Koweït ñu déclenché benn conflit international daal di dem song Irak euh, dal ci kaw Saddam. daanaka région boobu ñu occupé ko yàq fa lu bëree bëri bëri muy guerre boo xamante ne ay enjeu moo ci nekkaat ci ginnaaw mooy pétrole bi nga xam ne moo nekk ci moyen orient ñu jéem a fexe ñoom teg ci seen loxo léegi nag bi nga xamante ni doom ji ñëw na tamit daanaka amatul woon ci kaw taabal bi ci agenda leneen lu fi nekk lu dul yenn point yoo xam ne mi ngi fi woon yu ñu ciblé mooy lim tuddee woon l'axe du mal yi nga xamante ne bi muy def discours am boobu ci congrès bi waxoon na yi nga xamante ne ay pays yoo xam ne seet na leen ne ñi ñooy axe du mal axe du mal boobu ñoo nekkoon ci table bi mais il fallait que ñu am prétexte pour mën a dem song ko il faut que il fallait waroon nañu am lu ñu taafantaloo pour mën a dem song leen léegi loolu moo tax bi nga xamante ne attentat yi am na ñu jëfandikoo ko. ngir war lijjanti problème Afghanistan ndax gis nañ ne benn force mi ngi fay constitué wu loolu benn problème la naam mais tamit Afghanistan dafa nekk dëkk bu stratégique boo xam ne dafa am ay pipeline yoo xam ne waroon nañ ko fa jaarale am ay oléoduc yoo xam ne waroon nañ ko fa jaarale pour mën a exploiter yenn ressources yi nga xam ne mi ngi ci yenn dëkk yoo xam ne yu mu dendal la te il fallait ñu sécuriser Afghanistan teg fa seen loxo pour mën a daal di exploiter ressources yooyu nga xam ne mooy njariñ yooyu nga xam ne bëgg nañ koo jariñoo teg ci seen loxo te mu nekk ci réew yoo xam ne dañoo wër Afghanistan loolu kon euh, la fa naroon installé wala régime ba fa nekkoon di taliban yi nga xam ne ñoo fa fexe woon xeex ak seigneur de guerre yi fa nekkoon ak communiste yi fa nekkoon ginnaaw bi ñu génnee Union soviétique ñu xeex fexe ba unifié waat benn la Afghanistan ñoom afghans yi ci boppam nee nañ jamono jooju ci la seen dëkk gënoon a am jàmm. te bay bi ñu fa daan bay loolu nga xam ne mooy pavo nga xamante ni bi ci la ñuy génne benn xeetu drogue dem di ko yóbbu di ko jaay di ko tasaare ci àdduna bi te ñu wax ne Afghanistan mooy dëkk bi gën a bi koy bay mbay mi ci gën am solo Afghanistan lañu koy bayee pavot boobu ci la ñuy génne héroïne jamono jooju la mbay moomu gënoon a wàññeeku da ngay gis ne journaliste yi li ñuy jiiñ afga li ñuy jiiñ taaliban yi mooy wax ne taaliban yi fi ñu jëlee seeni ressources ci li ñuy alal ji nga xamante ni moom la ñuy ay ngànnaay ñu ngi koy jëlee ci jaay dorog ñoo xam ne dañuy jihaat ne dañuy xeex ñoom fi la ak lislaam ni mu jàngalee lislaam nga ni dafa tar ci dañoo tar ci seen diine ba nangam ak sàngam ba pare wëlbatiku ne dañuy dañuy jaay dorog pour mën a am ay ngànnaay loolu ngay dégg ci suñu experts yi toog ci seen plateau de télé yi di wax léegi bi nga xamante ni mbir yi demee na noonu kon taale kii yi am euh, attentat yi am George Bush daal di jóg daal di déclarer ay guerre ubbi ay front commencé nag xàjjale àdduna bi ne képp koo xam ne àndul ak ñoom dafa daf leen dafa dafa daf leen contre dafa ànd ak terroriste yi mu ne da ngay nekk ak ñun wala nga nekk ak terroriste yi ñaar yooyu benn moo ci mën a am nangoo ñu ubbi buntu xalaat ak gëstu ak njàngat mbir mi naka la demee ak lan moo tax lii am ak lan lan moo nekk ci ginnaaw déedéet dañoo daal di ñëw indi côté sentimental bi ak côté xuppaate bi ci wane ne attaqué nañ ñu te ñi ñu attaqué li ñu attaqué xamuñu ko guerre la indi tiital àdduna bi ba kenn ñemewatul sëqat mais attentat yoo xamante ne yu louche la waaye suñu gëstu ak njàngat bu ndaw li nga xam ne seetlu nga ko ci mooy détournement d'avion yi nga xam ne def nañ ko mooy ay avion yoo xam ne ay nit dugg nañ ca jël ko nangu ko ca ña ko doon dawal daal di koy jël jëmale ko ci ay bërëb niñ ko waxee ne noonu la demee dañ cee jiiñ ay nit dañ koo jiiñ ay nit yoo xam ni ca biir États-Unis lañ nekkoon di fa dund te ay gan lañ fa duñu ay américain beneen mbir bi ci nekkaat mooy ay arab lañ leneen li ci nekkat mooy ay jullit lañ nga dolliwaat ci ne ay service de renseignement yoo xam ne ci yeneen réew lañ nekk lu mel ne allemand yi wala tudd nañ israéliens yi tudd ci marocains yi tudd ci égyptiens yi nee nañ alerte nañ américains yi du benn du ñaar ci ne am na ay membre alqaida yoo xam ne ñi ngi biir états di préparer benn af benn attentat loolu bu fekkoon dañ ko waxoon ci jamono joo xam ne sax amul benn menace buy prôné ci kaw Amérique ñu mën a wax mais bu ñu fàttalikoo tuuti lu jiitu attentat wu 11 septembre yi di am en 98 am na ñaari attentat yu fi amoon fii Nairobi ak Dar es Salaam muy Kenya ak Tanzanie yoo xam ne ñaari ambassade Amérique lañ ci songu daal di koy explosel ay nit faatu ci mu nekk affaire bu rëy rëy rëy ci la américains yi njëkk a commencé di citer al qaida ak Osama Ben Laden loolu juróon ay attaques yoo xam ne defoon nañ ko fii ci Soudan wax ci ay wax ba wax ni carrément ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo def loolu Osama Ben Laden la ak al qaida kon defoon nañ leen ay noon ba wala déclarer leen guerre. kon du ñu ñu ñu ñàkkoon a xam xamoon nañ leen xam nañ di doxoon seen diggante ak ñoom yaakaar na organisation terroriste boo xam ne am na fitu fekk ñaari euh, ambassade États-Unis ci ay réew yu mag ci ay capital yu mag fii Afrique mu ñëw dal ci seen kaw taal ko def lu lu mel noonu nga xam loolu mooy humiliation la bu mu def américain yi wax dëgg yàlla dina yomb trop ñu ñëw infiltré wu dugg aux États-Unis dem ci ay école de pilote dafa jàng dawal nu ñu dawalee avion di préparer seeni attentat kenn inquiété wu leen ay service de renseignement étranger sax di leen bàyyiloo xel ci loolu waaye faalewuñ leen leneen li ci nekkaat mooy ñi nga xamante ne bi ñoom lañ wax muy pilote yooyu nga xam ne ñoom ñoo détourné avion yi ci école yi ñu jàngee yépp bi nga xamante ni ginnaaw bi dem nañ fa defaat ay enquête laaj ña nga xam ne ñoom ñoo leen doon jàngal seen moniteurs yi li ñu leen wax mooy ñooñu mënuñu woon dawal sax avion bu ndaw bay mën a dawal avion yu mag yi nga xamante ni ay vol commerciaux la waxuma la dara nag waaye manœuvre yi nga xam ne wax nañ ne def nañ ko ci attentat yi dafa jéggi dayoo dafa nekk lu doy waar te am na ci vol yooyu yenn pilote yu ko doon piloté yoo xam ne dañ leen defaloon formation ci antiterrorisme ñenn ñi jaar nañ ci armée bi ñu defal leen ay formation ci pour nu ñu mën a def ba sàmm seen avion ba bu ay terroriste duggoon bugg ko nangu duñ ko mën a nangu waaye nga gis ne détourné nañ ko détournement bu yomb jël ko di daw ak moom ci euh, asamaanu Amérique bi amul benn intervention boo xamante ne américains yi def nañ ko seen armée bi def na ko te ñoom wax nañ ni sécuriser nañ seen euh, fi li nga xamante ne mooy asamaan seen ciel ci façon boo xamante ni bii bu fa bu fa détournement d' avion amee du mat sax quinze minutes. am ay chasseurs yoo xamante ne bi dinañ jóg daw dem fekk ji ko fu mu nekk escorté ko daal di koy wàcce bu fekkee bañ na ñu daaneel ko waaye lenn ci loolu amul rawatina sax ay avions yoo xam ni dañoo jëm ci ay cibles yoo xamante ni bi yu sensible la mooy lu mel ne Washington jëm ci Maison Blanche wala ñu jëm fi nga xamante ne mooy Pentagone bi wax nañ ci loolu yi ci am yépp ci faay yi nga xamante ne am na ci ci diggante seen agence yi nga xamante ne bi ñoom ñooy gérer wàllu seen asamaan si ak gérer li nga xamante ne bi moom mooy seen sécurité intérieure mais mbir la yoo xam ne boo ko dee xool da ngay mujj waaru ci yàlla waaye am na te détournement bi d'après ñoom lu ñu wax am na gaa yooyu dugg nañ ci ay avion jaar nañ ci aéroport yi dugg ñenn ñi sax nee nañ bu ñuy romb seen portique yooyu nga xamante ne bi moom ngay jaar muy détecteur de métal yooyu dafa déclenché wu waaye ak lu ci mën a am nee nañ dugg nañ yëg nañ ci vol yi ñu demee détourné nañ ko def nañ ay mbir yoo xam ne laata sax ñuy atteindre seeni cible ñenn dañu wax ne naka la loolu mën a amee ndax débranché ay transpondeur yi nga xamante ni moom la ñuy communiquer ak seen tour yi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci seen aéroport yi muy aiguilleur de ciel yi nga xamante ni bi ñoom ñoo leen war a guider di leen suivre di leen teg ci yoon ñu de ñu ñu ñu ñu ñu déconnecté ko ba nga xamante ni bi ñooñu mënatuñoo communiquer ak ñoom te loolu am na yenn spécialistes yu wax ne pour déconnecter ko il faut que mu am code boo xamante ne bi moom la nit ki di tàppe pour mën ko dindi du n'importe qui moo mën a déconnecter avion waaye déconnexion boobu am na. léegi beneen bi ci des mooy détournement bi am ñu jëlee avion yi ci seen yoon bi ñu waroon a jaar teggi leen ci daal di jëm ci beneen ci yeneen cible léegi li ci gën a doy waar mooy avion. du daw comme ni avion surtout avion yi nga xamante ne bi moo avion de ligne yu mag yi surtout vitesse bi nga xamante ni wax nañ ni dalee na ko frappé na ko ay ciblam am na benn ci seen au yi bu doon wax ne dina dina jafe ci moom mu comprendre trop vol bi nga xamante ne bi moom moo dal ci tuur yi vitesse bi nga xamante ne allure bi nga xamante ne wax nañ ne moom la doon moom la doon daw nee na loolu moom mënu ko xaw koo mën a comprendre ndax c'est très difficile wax nañu noonu la demee léegi bi nga xamante ne bi détournement bi am na li ci doy waar mooy amatul kon guidage bu am ci lu ñu leen di jubbanti ne leen jaaral fii daawal altitude bi tourneel ni defal nii mais dafa mel ne ki nga xamante ne bi moo nekk léegi ci cockpit bi dafay mel ne kuy dawal sareet wala muy dawal oto wëlbati avion bi di tañax tañaxeek moom di wëlbatiku di dem maanaam daal pilotage à vue doon def ba jëm ci cible yi daal di koy daal di ciy dal mais loolu xawul mën a nekk ndax nekk ci avion di naaw ci asamaan si muy daw ci benn vitesse bi ngay wëlbatiku di di ko man di ko manoeuvrer di ko manipuler ba fekk benn cible boo xamante ni daanaka avion bee ko xaw a gën a yaatu sax nga ñëw atteindre ko dal ci loolu daanaka xel sax nangu ko mais noonu lañ wax loolu lañ gëmloo nit ñi ne loolu la pilote yi def ci ñoo xamante ne bii ci ay école pilote bopp koñ lañ daan dem naan dañ fay jàng dawal. ñu leen di jox ay avion de tourisme yu ndaw ñu koy jéem a jàng di ko jéem a dawal ñenn ñi mënaguñu woon sax dawal nee nañ ñoom ñoo def lu tool noonu léegi loolu noonu lañ ñu ko tegalee suñu kanam wan ñu ko ci télé yi ne loolu la loolu la ñoo ñu def mu mel na comme film lu yomb lool bu doon sax benn wala ñaar mais ñeenti avion fu mel ne Amérique aux États-Unis ñëw nii rek jël leen nangu leen naaw ak moom. dem ñaari ñu dóor leen ci ñaari tour jumelle yi nekk Manhattan New York benn bi ñu dóor ko ci Pentagone bi boobu tamit am coow lu bari ndax avion la boo xamante ni kenn gisul trasam am am na ñu wax ne gis nañ ko mais fi mu dal amul lenn lu mu fa bàyyi amul débris benn bu ñu gis boo xam ne ci avion bi la bokk yenn experts yi nee nañ am na yoo xamante ni ci avion bi euh, weñ la boo xamante ni weñ bu dëgër la boo xam ni daanaka mënul seey même bu avion bi defee choc lu choc bi tar tar tar ba léegi dinañ ko mën a gis waaye gisuñu fa dara photo yi nga xamante ni njëkk nañ koo jël ci kanamu pentagone bi lu niroog avion newu fa ñu wane benn bën bën bu ndaw ci mur bi boo xamante ni wax nañ ne nee nañ foofu la avion bi dugg mel na daal dafa dafa seey ci biir bâtiment bi te nee nañ côté boobu nga xamante ni fa la dal foofu dañ ko renforcer woon ba ci fenêtre yi dañ ko defaraatoon renforcer ko sécuriser ko ak ay kevlar fenêtre yi nga xamante ne moo fa nekk nga xam ne dañoo renforcer woon bâtiment bi foofu structure bi mais noonu lañ ko waxee ba léegi wanuñu nit ñi luy wane ne avion dal na fa benn vidéo bu ñu wane woon déclassifié ko boo xamante ni benn caméra bu nekk fu sori ci benn station service bu nekk à côté nee nañ moo ko jël benn explosion la wane daanaka doo gis dara loo xamante ni mën nga xam ne li avion la voilà lu mel ne Pentagone bi ak niñ ko sécuriser ak li fa war a nekk ci ay caméra de surveillance yëpp mënuñu tegal nit ñi luy wan nit ñi ne am na avion bu ci dal mais noonu lañ ko waxalee nit ñi mooy neex naqari dañ ko war a gëm ku ko gëmul complotiste nga wala xoolal lan nga <laughs> lan ngay doon léegi loolu am beneen bi ci des mooy bi daanu fële Pennsylvanie boobu tamit fi mu daanu benn cratère bu mag la fa bàyyi muy pax bu rëy rëy boo xam ne moom la fa gas nee nañ waaye ba léegi kenn gisu fa loo xam ne débris la bu jóge ci avion wala loo xam ne ca passager yi nekkoon ci avion bi la jóge ñu gis ko ci avion bi léegi bu fekkente ni gis nañ loolu yëpp avion bi seey ci biir Pentagone bi ak bi dal bi dal fële ci euh, Pennsylvanie dañuy gis ne li ci doyaat mooy bokk na ci preuve yi ñu teel a indil pour xam ne alqaayida ñoom ñoo def attentat bi mooy benn euh, passeport boo xam ne ci kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo détourné woon avion bi moom lañ for New York mu wadd maanaa daal avion buy daw ci allure bu toll noonu war a dugg ci ci bâtiment bu mel noonu explosé gisatuñ ci avion bi dara mais ci diggante bi par chance mën nañ fee for benn passeport boo xam ni ñi ngi ko ñi ngi ne ci kenn ci pilote yi nga xamante ni ñoo détourné woon avion bi ci moom la jóge comme par xaw ma naka laa ko mën a waxee par chance noonu voilà léegi loolu loolu mbir la yoo xam ne yu doy waar la mais dañ koy wax juste pour nit ki gën a gëstu ndax am na ay livres yoo xamante ni ay gëstukat bind nañ ko ci ak ay documentaires yoo xam ne def nañ ko ci yenn yi ngi ci internet bi donte léegi jafe na trop nga am ko fu mel ne YouTube ndax YouTube lu ñu lu ñu bëri xamul mooy YouTube mi ngi ci yoonu censure censure bu jéggi dayoo boo xam ne fi mu jëm ak ñun ci wàllu information dafa nar a jéggi dayoo tàppee lépp lu aju ci wàllu 11 septembre wala lu aju ci ay wàllu corona wala dara nga def recherche ci Google wala nga def ci YouTube. nga xool ni mu lay filtrer les ay résultats am yi nga xamante ni mooy situ média yi nga xam ne ay média officiel la rek yooyu la lay indil média yi nga xamante ni mooy média de masse yi ñooñu la lay indil daal di leen teg ñu nekk première plan da ngay seet seet seet ba sonn mais blog yi nga xam ne bu njëkkoon ay nit daan nañ ko def sax di ci bind seeni xalaat di ko def ak yooyu léegi daanaka dootul la ko officiel lépp loo xam ne lu septible pour mën a indi beneen version ci fee yi am yu ute ak version officielle bi la YouTube léegi wala Google léegi da koy censurer dem xool Bing sax bi nga xamante ne bi mooy bu Microsoft def fa recherche léegi moo ëpp ci ngay gën a amee chance pour am yenn résultats yi ka dem di ko def ci Google voilà loolu ñu bëri bàyyiwuñ ci xel. li ñu filtré léegi seeni résultats jéggi na dayoo. recherche yi ngay def foofu léegi résultat bi dañ koy segg segg segg segg segg ba lu leen neex loolu lañ lay jox voilà moo tax euh, comme yi nga xamante ne bi mooy yi euh, gars yi développé ci ay vidéo ak yooyu yu ci bëri xëy na Dailymotion nga koy fekk mais YouTube doo ko fa fekk wala pour nga gis ko dina jafe lool euh, wàllu corona bi dafa dem ba léegi boo defee benn vidéo wax ci loo xam ne dafa ute sax ak li nga xam ne mooy version officielle bi YouTube daf koy censurer dañ koy dindi dañ koy supprimer carrément ne la lépp loo wax loo xam ne dafa ute ak li OMS di wax ci politique OMS ci affaire corona dañ koy censurer mais loolu lan lañ lay tekki loolu léegi loolu moo tax kon dañuy wax rek pour euh, soulever xëy na ay ay mbir ak souligner ay point pour nit ki moom dem gëstul boppam li ci des bi nga xamante ni bi euh, avion yi dal na ci euh, World Trade bi te mu mel na comme tamit ba léegi rek par hasard ba léegi comme ni ñu koy waxee jamono bi nga xamante ni bi loolu mi ngi am am benn genre reportage bu ñu ne dañ ko fa doon def boo xam ne am na ñu taxawoon ci suufu euh, building bi di filmer boo xoolee deuxième vol bi bi muy dugg ci avion ci kii bi ci building bi waa ji dafa jóg rek directement jëmale objectif caméra bi ci avion bi ak li muy gaaw gaaw gaaw mu filmer ko te yaakaar naa gestu xoole ak wëlbati euh, viseuru caméra ñaar yooyu bokkul gestu xool par réflexe mën nga ko def mais wëlbati viseuru caméra jëmale ko ci benn objectif balaa nga ko mën a def foog nga détecter objectif bi ba pare pour mën ko def nekkul lu yomb ndax bët ak caméra bokkul mais waa ji noonu la ko def daal di koy filmer bi nga xamante ni ñaari avion yi dal na mu daal di am incendie boo xam ne déclenché wu na mu tàkk am nit ñuy daw di génn ñenn ñi di tëb yàggul dara ci building yu toll noonu ak structure bu toll noonu nga xam ne acier la ak béton. ñu dëgëral ko sécuriser ko ci préparer ko ci yu bari ba ci sax avion boo xamante ni bi da cee dal war koo mën a daaneel loolu yëpp préparé woon nañ ko ci waaye tàkk-tàkk bi amul une heure de temps avion yi kii euh, nu mu tuddati building yi daal di rot ci suuf mel na comme xob bu fekkoon sax dafa li nekk ci kaw dafa daanu building bi weng ñu nekkoon xëy na fi mu dal foofu moo sedde affaire bi structure bi daanu mais dafa mokk rumbux jóge ci kaw ba ci suuf mel na doom di exploser di daanu li ñu tuddee chute libre la doon def ñaar yëpp noonu la def ñu ne déet beneen building ba nekkoon ca wet ga boo xamante ni nee nañ seen service secret yi seen service de renseignement yi CIA ñoo fa installé woon am fa yoo xamante ni moom lañ doon gëstu surtout ci wàllu marché yeeg wàllu bourse yeeg yooyu muy building 7 bi daal di jékki-jékki moom itam ne rëpp ci suuf kenn laalu ko explication yi ci yiñ ci jox mooy nee nañ débris yi nga xam ne moom moo jóge muy ferñeent yi nga xam ne moo jóge ci ñaari e, tuur yi dal ca moom moo ca indi tàkk-tàkk ba building ba moom tamit daanu maanaam moom avion laalu ko xam nga ñooy sax ñenn ñi dañuy wax ne avion bi ni mu ci dalee loolu moo moo néewal doole structure bi après tamit kérosène bi bi mu tàkkee loolu tàngoor bi moom moo tax poutrelle yi sédde genre théorie yooyu la ñuy wax. mais building seven bi mënuñoo wax ba léegi lan moo ko daaneel dafa jékki-jékki moom itam ne mbàpp ci suuf moo tax ñenn ñi ne ni mu daanoo dafa mel ne démolition contrôlée te ña fa nekkoon ci témoins yi nee nañ avant muy am chute avant muy am effondrement dañ doon dégg ay explosion yoo xamante ne bi dafa doon nuroo ak démolition muy dañ doon dégg ay bum bum bum lañ doon dégg voilà moo tax ñenn ñi si ñoom wax ne après ci débris yi dañ fa fekk. Euh, fer boo xamante ne bi muy weñ boo xamante ne dafa ruy dafa ruy dafa dama dafa lakk ba ruy ci suuf li nga xamante ne moo téye woon building bi dañ fa fekk ay weñ yoo xamante ne dafa ruy ñu daal di gaawantu jël yëf yi euh, daal di koy sécuriser bi nga xamante ne jël nañ débris yi lan lañ def dañoo gaawantu jël ya ca nekkoon ak weñ ak yëpp daal di koy jël yóbbu ko yenn yi dañ koo génne États-Unis nanguwuñ cee woon def recherche bi nga xamante ni gëstu yi nga xamante ni moom la ñu waroon def pour xam lan moo daaneel dëgg dëgg dëgg building bi waaye bi nga xamante ni coow li jib na coow li jib na toog nañ lu ëpp at ñuy soog a def benn commission boo xamante ni seen waay lañ jël teg ko ca mu jiite ko ñu daal di wax ne dañuy def ay enquête pour xam dëgg-dëgg mbir mi naka la demee ñu dem commencé di interroger ay nit. waaye yu bari yoo xamante ne ay zone d'ombre la yoo xam ne dañ fay bëgg a laal pour xool xam mbir ma nam demee dañ koy censurer duñ leen ca nangoo bàyyi ñu dugg ca mbir mi daal nekk lu luusa luusa luus ci déroulement wu attentat yi ni nga xamante ne bi noonu lañu def ba mu am ni mu amee itam waaye bi mu amee itam di nga gis building yi nga xamante ne noonu la daanoo daanu win boo xamante ne bu bu doy waar la boo xam spécialiste yi nga xamante ni ñoom ñoo xam loolu ñoom nee nañ li ñu gis ci bâtiment yi mu def ko du ay bâtiment yu écroulé parce que dafa am incendie te mosuñoo gis incendie fu mu daanelee bâtiment yu mel noonu mosul am ci histoire waaye nee nañ daanu na waaye daanu bi mu daanu du building boo xam dafa am lu dal ci kawam yëngal ko mu sedde du daanoo noonu boo war da nga gis dina daanu yenn yenn kii fàq yi ci des xaw a dëgër wala yooyu waaye loo xamante ne dafa àndandoo lépp nekk poussière daal di eh, màbb ba ci suuf nga gis doom bi jóg tasaaroo partout ci biir New York loolu explosion la loolu démolition la léegi loolu nga xamante ne bi am na ci attentat yooyu bi nga xamante ne am na demee noonu ñu daal di koy jël rëyal ko ci ëllëg sa rek ñu daal di commencé di wax di tudd ay Ben Laden commencé di wax ay terroriste terrorisme ak yu mel noonu daal di jël ñi nga nombre de morts yi nga xam ne ñoo ci am te am na ñu wax ne mel na ne am na ñu yëgoon ne dara dina xew ci World Trade bi parce que li fa daan nekk ci ay nit ay junni junni junni doomu aadama la. normalement bu doon rek temps normal la dara xewul bu fa ay euh, avion dalee attentat am fa mu daanu la fay dee ci nit ay junni junni junni junni doomu aadama la waroon doon voilà ay trois mille et quelques ñoo faatu bu fekkente ni boole nga ñëpp ñëpp ñëpp ñi nekkoon ci avion yeeg ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci tour yeeg yëpp bu fekkee boole nga leen ak ñi faatu ci Pentagone bi mais normalement li nga xamante ni bi moom moom moo fay nekk ci ay doomu aadama dafa xëy dafa liggéey ci ay nit ëpp na loolu fuuf am na ñu wax am na ñu wax ci yenn gëstukat yi ne bis boobu ñu bari ñëwuñu woon lan lañ yëgoon ak lan moo taxoon ba ñëwuñu ci ñaari tuur yooyu noonu loolu lu jar gëstu la waaye bi nga xamante ne bi loolu xew-xew boobu am na ñu daal di jug commencé di wax wàllu terrorisme gars yi daal di dem ñaari fan lañ ci teg ONU daal di daal di daal di daal di eh, voté ne États-Unis am nañ sañ-sañ ci fayu ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo leen def liñ leen def am nañ sañ-sañ ci fayu ci selon ñoom ñu ko gisee fan la loolu mës a am dëkk boo xam ne dañ ko attaqué mu am mu am attentat terroriste mais dañuy dañuy enquête jël seen temps topp ko xool ko jàngat ko jël yëf fi jox ko justice justice bu demee ba xam ñu xool gis nañ diw ak diw ak diw ñoo ko def ñu jël yëf yi jaarale ko ci yoon pour xam. ñii ko def nii euh, naka la ñuy def pour teg leen ci yoon ndax waxuñu ne réew moo ko def organisation terroriste lañ wax boo xamante nit moo ko jiite te nit kooku noonu symboliser wul représenté wul benn réew kon même bu ñu waxee acte de guerre la tamit seen diggante ak benn organisation la boo xamante ni représenté wul benn réew dañ ne ki ko def ki ñu ko wax ne moo ko jiite dafa dafa nekk ci réew làqatu fa waaye moom du moom moo jiite réew moomu amu fa benn poste de responsabilité nekku fa ministre nekku fa député nekku fa dara kon naka lañ mën a déclarer guerre réew mooma ci rek ne kooka ci réew mooma la nekk loolu fan la ma sa am fan la nit ma sa defee attentat ci réew dem ci beneen réew ne fa réew moomu déclarer guerre réew réew ma nga xam ne fa la kooku nekk parce que dani ki nga xam ne moo def attentat bi yéen ko fat te bi nga xamante ni loolu am na porte parole taliban yi dafa génn ndeysaan ndeysaan laay wax dafa génn def benn conférence de presse ne bu fekkente ne américains yi indil nañ leen ay preuves yi wane implication Ben Laden ci attentat yi ñoom dinañ ko livrer mais bu fekkee loolu amul luñ ko libre américains yi ne ñoom am nañ ay preuves yoo xamante ni day wane ne ñoom ñoo ko def buñ toogaatee ay fan laaj leen ko ñu ne ñoom seen preuve yi ñu am duñ fi nekk di ko wane parce que yenn yenn information yi dafa sensible loolu chaque fois loolu la ñuy wax information yu sensible ba àgg ci ne ay preuve la ñu war wan nit ñi pour wan leen ne. diw moo def attentat bi ñu ne déedéet duñ ko wane parce que dafa sensible c'est stratégique léegi liñ ci tegaat mooy wax na ñoom duñ fi nekk di wax di discuter ak ay terroristes kon duñu fi nekk di wax ak euh, taliban yi kon mooy taaliban yi ay terroristes lañ waaw léegi loolu la nit ñi bàyyiwul xel mais taliban yi lan lañ leen def bañ leen di traité de terroriste bu fekkonte ni alqaayida ñoo leen wax ne leen suñu chef bi nga xam ne mooy Oussama Ben Laden duñ leen ko livré. bu ngeen ñu joxul ay preuve ñu ne leen kon duñu leen duñ wax ak yéen parce que ay terroriste ngeen mais taliban yi ñoom ñoo leen wax loolu lu tax ñu leen di traité de terroriste kon mooy wane ne loolu lapsus lañ koy tuddee mooy wane ne am na lu ñu lu ñu lu ñu préparé woon guerre la boo xam ne lu ñu préparé woon la voilà guerre la boo xamante ni lu ñu waajaloon la lu ñu waroon a def la ndax am na yu bëri yoo xamante ni waroon nañ ko cee régler waroon nañ ko cee lijjanti mais li ñu bëggoon rek mooy am loo xam ne dina tax seen réew seeni nit ànd ak loolu loolu nag euh, attentat yi may na leen ko ak yeneen mbir yoo xamante ni ay nit waxaat nañ ne nekk na ci ginnaaw attentat ndax agenda bu yàgg yàgg yàgg la ci wan buñ ko yàgg di wan nit ñi ci ay mbir ci ay film ci ay euh, clip musicaux ci ay euh, sax jeu jeu wu taro wala jeu Illuminati wala biyewu dollar bi wala yu mel noonu yàgg nañ ci dañ gëm affaire ñoom symbolisme yàgg nañ ci di junju euh, dal boo xamante ne avion dina ko mës a dal wala explosion dina ko mës am ci ñaari tuur yi beneen bi ci des mooy 11 septembre bi ci boppam mooy 11 9 bi euh, loolu tamit am na loo xamante ne bi lu bëri loo xam daf koy euh, jëmmal di ko symboliser ci seen pas-pas ak ci seen ngëm-ngëm yooyu. dëppook tamit sax seen numéro bi nga xamante ne bi moom la ñuy woote buñ ñu soxlaa secours muy 911 loolu tamit ba léegi nit ki mën na wax ne dafa tombe rek dafa dëppoo waaye ci ku xam wàllu numérologie ak euh, lépp lu jëm ci wàllu symbolisme yi nga xamante ni ci wàllu occultisme la jëm dina xam ne des fois du nekk tombé rek ay agenda la yoo xamante ni lu ñu préparé woon bu yàgg la léegi li ci am ci affaire attentat bi mu amee. mooy jóg dal ci kaw Afghanistan te bi nga xamante ne dal nañ ci Afghanistan daal di commencé wax terrorisme ne dañuy def léegi guerre internationale contre le terrorisme commencé jël ay mesures def seen Patriot Act boobu noonu gën a xoj nit ñi gën leen a léegi njattaat ci li ñu doon wax ci problème réaction solution mooy ordre ab kaaw boobu nga xam dañ koy def ci indi désordre pour mën cee defee li nga xamante ne bi mooy ordre mooy l'ordre à partir du désordre léegi loolu la ñu am ci bu baax a baax ci on septembre bi parce que 11 septembre bi may na leen ci prétexte su xeexal xeex li nga xamante ne bi moom mooy terrorisme ak pour indi sécurité ci nit ñi nit ñi nanguñu contrôler leen contrôler leen limiter seeni liberté bu baax a baax a baax te loolu bu fekkente ne nit ki teewlu na bàyyi na xel Patriot Act bi nga xamante ne defoon nañ ko ci jamono yooyu ñu voté ko ndax kenn ñemeetul woon opposé wu ci loo xam ne mesure la bu euh, gouvernement George Bush jëloon ci jamono yooyu ndax fibre bi nga xam ne ci lañ doon joué mooy affaire patriotisme mooy boo fi amee lenn looy tergiversé ci li ñuy wax rek yow doo patriote te chaque fois américains yi noonu lañ leen di naxee léegi ba nanguloo leen loo xam ne xalaatuñu woon sax di ko nangu bu fekkoon jàmm rek moo xew te itam ay nit lañ yoo xam ni seen i homme politique seen i niti politique nax nañ leen nax ak si jaareekule ko ci média yi ba nga xam ne daanaka lu ñu leen wax rek loolu lañu xam surtout ci jamono yooyu léegi sax àdduna bi gën a ubbeeku tuuti ak internet bi nit ñi commencé am ay esprit critique di gëstu di kii mais ci jamono yooyu nga xam ni internet bi développé woon benn ba ci am benn kàttan bi trop ci nit ñi euh, ci wàllu partage d'information bi am léegi ci réseaux sociaux yi àggagu ameegul woon noonu doole euh, jamono yooyu nit ñi fi ñu jëlee seen information mooy ci média yi média de masse yi. voilà léegi nag euh, liñ liñ leen di wax foofu rek loolu nit ñi mënoon a xam loolu la nit ñi mënoon a gëm te liñ leen doon wax mooy di ko def en boucle mooy même information bi lañ doon martelé mooy la version officielle ak li nga xam ne mooy tamit laal wàllu patriotisme bi ak seen fierte ak tamit wàllu émotionnel bi ak yu jëm ci yooyu yooyu rek lañ doon def waaye gis nga yàlla suñu borom subhaanahu wa taala léeg-léeg bu bëggee dóor ponkal da koy jëy gis nga dem biñ dem Afghanistan erreur bu rëy la. erreur stratégique la amuñu woon lu ñuy gañe foofu daanaka dem nañ fa yàlla buggul koy tooñ ñi ngi nii jóge nañ fa ak gàcce ak toroxtaange lañ fa jële donte ñi ngi wax di bàkku naan wàññiwul dara ci seen kàttan ci àdduna bi ba léegi fañ tolloon ña ngi fa mais wane na seen télé te du ñoom rek ñoom ak ña àndoon ak ñoom ci seen mbokki occidentaux yi demoon foofu ak seen armée yu moderne yi ak seen nouvelle technologie yi lan lañ mujjee rocceeku dem bàyyi fa taliban yi neexu leen mais mënuñ ci dara leneen li ci nekk mooy ñu ñëw ba ci jamono Ousama jamono euh, Barack Obama ñu ne def nañ benn opération boo xamante ni bi seen euh, force spéciale yi ñoom ñoo ko def pour dem rey ki nga xamante ne bi capturé sax la ñu waxoon ki nga xamante ne bi moom mooy euh, Ousama Ben Laden mu nekk échec ndax li ci njëkk mooy dangay xam ne film la ñuy joué ci li ñu wax ne def nañ ko ndax opération la boo xamante ni da ngay gis ne il fallait ñu def ko pour wane ne voilà ñoom kenn gàccaalu leen ndax bu ñu waxee ne kooku def na loolu muy benn doomu aadama def lu réy lu mel noonu américain yi ak li ñuy wane ne am nañ ko ci kàttan ak ci xare la ne fi di dund di di nekk ci àdduna bi di dox di dund moo ko ay nitam ñu war ko fu ne loolu ñu xam ni ñu xam def ko mënuluñ ko dara mënuñ koo jàpp loolu dina nekk gàcce gu rëy ci ñoom kon il fallait que gàcce googu ñu teggi ko ci wax na jàpp nañ ko waaye comme jàppuñu ko léegi lan lañ mën a wax nit ñi mooy rey nañ ko waaye buñ ko reyee ana buñ ko reyee anamu buñ ko reyoon trophée de guerre lay doon américains yi bu ñu reyoon benn Laden trophée de guerre la ñuy doon bu ñu brandir ci kanamu àdduna bi waaye kenn gisu ko lan lañ wax nee nañ dañ koo jël sànni ko ci géej gi comme ni ko jullit ñi di defee pour respecter ni jullit ñi di dencee seen i néew kañ la jullit ñi di jël seen i néew di leen sànni ci géej gi kañ loolu musul am ñàkkee wuñu xam lislaam noonu mais day wane rek ne ay waxi naqasandang la comme ni ñu koy waxee ngeen baal ma ci wax ji voilà loolu loolu lañ mën a tuddee loolu ñu def beneen bi ci des mooy wax ji ñu wax ne euh, fële lañ ko lañ ko reyee euh, Pakistan lañ ko reyee loolu tamit échec la de leur part ndax ñoom songuñu Pakistan te Pakistan lañ ko reyee lan moo tax kon puniruñu pakistanais yi parce que pakistanais yi Ben Laden mënul installé wu ci seen suuf ak seen service de renseignement nu mu amee doole Pakistan bokk na ci réew yi nga xam ne seen service de renseignement yi ñoo ëpp doole ci àdduna bi réew mu doy waar la Pakistan waaye ànd ak loolu lan moo tax piniruñu pakistanais yi pour wan leen ne ñoom ay complice lañ seen diggante ak alqaida ba léegi kenn déggu leen ñu wax benn baat ci loolu ndax xam nañ ñooñ seen i alliés stratégique lañ pakistanais yi li am ci diggante pakistanais yi ak taliban yi parce que taaliban bu ñu koy pakistan moo tax ndax foofu mooy seen cosaan ay afghan lañ mais pakistan lañ nekkoon di jàng ci daara yi nekk foofu fa lañ daan jàngi xam-xam kon am nañu rapport bu rëy rëy ak relation bu rëy rëy seen diggante ak euh, pakistan américains yi dañ mës a gëmm ci loolu seen bët léegi liñ waxoon rek pakistanais yi napp leen ci jamono bi ñuy song afghanistan mooy foog ñoom tamit ñu wan leen seen pare pour jàppale leen yaakaar naa jamono jooju est-ce que du Moucharaf moo fa nekkoon général Moucharaf daa mel ne moo fa nekkoon waaye biñ fekkee eh, bi ñu demee rey benn Laden d'après ñoom lu ñu wax Pakistan loolu échec bu rëy la ci ñoom ndax loolu day wane seen i contradiction loolu foo loolu day wane dañoo waroon dem baalu àq taaliban yi muy afghan yi ndax ki nga xamante ni moo taxoon ñu ñëw seen réew rey fa ay junni junni doomu aadama tas réew ma toj ko tasar di bombarde di rey ay doomu aadama kooku biñ koy mujj di di di rey reye wuñ ko biir Pakistan biir Afghanistan Pakistan lañ ko reye kon tooñ nañ leen te ki taxoon ñu tooñ leen fekkuñu ko seen réew waaye loolu yëpp duñ ci wax dara nit ñi sax amuñu euh, dal gu toll ne lucidité wu bu information bu mel noonu ñëwee ñu mën ko analyser pour jël ci conclusion yu mel noonu ci waa ah yéen waxoo leen ñu woon loolu bi ngeen di dem Pakistan Afghanistan da ngeen ne woon kii moo leen fa yóbbu. te ba ngeen di wax ne rey ngeen ko reyewoo leen ko foofu yéen a ko reyee tel pays kon waaye loolu yëpp du am maanaam dañ ñoom dañuy do jëfee seen doxalin américains yi mooy lu ñu neex la ñuy def kenn amul droit dañuy wax lu tax ngeen def ko noonu la ñuy comporté woo ci àdduna bi nit ñi am nañ ci ñoom faiblesse parce que loolu la ñuy wax ci soft power bi bi ñu doon waxtaanee ci jamono yu weesu ak hard power bi mooy américains yi ci wàllu soft power ci ni ñu dominer nit ñi culturellement ak intellectuellement ci àdduna bi nit ñi am nañ complexe d'infériorité ci américains yi bu toll ne yooyu ñuy def ci ay toj-toj ci jëfandikoo kàttan di def lu leen neex pour nga gis ku am courage yu sax condamné ko ak ñaawlu ko dafay jafe daanaka mën nga wax ne daal ñi fi amal ay altercation ñoo xam dañuy xaw <laughs> ñaawlu seeni i mbir ak yooyu mooy jullit ñi mais ñi ci des ñëpp ay suiveur lañ lu ñu def rek dafay mel ne lu jaadu la lu ñu war a def la mais ay tooñkat yu mag lañ. ay tooñkat yu mag a mag a mag a mag a mag mooy occidentaux yi du sax américains yi rek seen histoire daanaka tooñ rek moo ko lal ci ni ñu envahir àdduna bi coloniser àdduna bi fu nañu dugg fa lu ne ñu yàq ko lu ñu rey ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll seen civilisation bi daanaka cere ju ñu mën a mooñee deret la deretu doomu aadama léegi bi nga xamante ne bi loolu am na ñu jógee ci ci ñu dem dal ci kaw Irak ndax liñ doon njëkk a wax. te ñoom George Bush ak ay dictionnaire di ko wax mooy wane ne Saddam Hussein dafa am rapport ak alqaida xeex ak alqaida xeex ak terrorisme da leen war a yóbbu Irak ci koo xam ne président la bu nekk réewam di jiite réewam di jiite dëkkam ñu attaqué la ay terroriste attaqué la yoo xamante ni taqewu ci jotewu ci nga ne ñoo ñu la attaqué sa réew moom ma la toog ci réewam di ko gouverner daf ci am na ak ñoom rapport Euh, ki nga xamante ni mooy Saddam Hussein am na ñu ko gën a nekk ay dictateurs yu mag foofu ci àdduna bi te dérangé wul américain yi mais dafa am ay compte ñu waroon rendre seen diggante ak moom il fallait que George Bush dem àggale liggéey bi nga xamante ni papaam commencé woon na ko ci loolu lañ commencé waat di ko indil ay problème ci arme de destruction massive yi ñu wax na yor na ko léegi chance su xëy na Sadam moo nekkoon lenn ci agence ONU yi nga xamante ne bi ñoom ñooy saytu li jët wàj aju ci wàllu ngànnaay yooyu nga xam ni dañ koy tere ñoom ñu dem fa te Hans jiite ko woon yaakaar naa Finlande la jiite woon ko dem fa xool fu ne mu dugg fa li mu joon def ci ay rapport am mooy wane ne wax dëgg yàlla gisu fi luy wane ne Sadam yoreti na ngànnaay yu mel noonu lam ca yoroon yëpp yàq na ko waa joo xamante ne bi ñi ko xam ci xam liggéeyam nee nañ nit ku dëggu la nit ku jub la koo xamante ni daal ku fonk liggéeyam la waaye américains yi weddi ko ba tëdd ci suuf na ñooñu dañuy wax rek li ñuy wax xamuñu ko ñoom am nañ ay preuve ay firnde yu wane ne Saddam mi ngi préparé di defaraat ay ngànnaay yu mel noonu ba léegi. nee nañ waajooju loolu da koo méttee méttee métti ba daanaka ci loolu la retiré woo ci lépp lu jëmati ci wàllu yu jëm yooyu ak liggéey bu mel noonu dem toog dëkkam ndax ni ko américains yi humilier boroom xam-xam bu mel ne moom ak gëstukat bu mel ne moom gëstu def ay rapport am wax ñoom ñu weddi ko ne li nga wax amul daal di jóg ngemb ay seeni nit Colin Powell ñëw taxaw ci kanamu àdduna bi yëpp ONU yore benn flacon di wane ne ñoom am nañ ay preuve yu wane ne Saddam mi ngi préparé ay armement yoo xamante ne bi nangam sàngam wax ay wax yoo xam dafa benn show boo xam ne spectacle boo xam ne c'est humiliant sax moom ci boppam loolu daanaka moo ko yàqal carrière am dañ ko manipuler dañ ko utiliser ndax xamoon nañ ne ku crédible la ci kanamu américain yi ndax c'est un ancien soldat c'est un ancien te moom moo defoon guerre du golfe bu njëkk bi gagné woon ko di woon noir boo xamante ni bi dem ba nekk borom cinq gallons ah kooku xëy na gisuñu woon ci seen euh, administration bi ku ko ci ëppoon crédit ñu jël ko jëfandikoo ko ci loolu waaye loolu yàqal ko lu bëree bëri bëri bëri ci loolu lañ songee Irak tas ko tasar. rey fa ay junni junni nit itam ay problème jugati fa problème confessionnel yoo xamante ni yu muuru woon ci suuf si la te Saddam moom moo ci tegoon tànkam ndax siit yi nga xamante ni mook ñoom yàgg nañ laale jàppante ay jamono yu yàgg ci xeex yu metti mu seen muy digganteem ak Iran te ñu nekk tamit ba léegi biir Irak iranien yi di leen ngemb ñuy doon jéem a fexe lu ñu mën a def pour euh, def coup d'état Saddam saa bu ñu ko jéemee def mu échoué mu jàpp leen duma leen ndax ay nit lañ yoo xamante ni seen doxalin ci wàllu ay complot ak yu mel noonu loolu moom seen seen jikko la noonu la ñuy doxee ay nit yi complot lañ yoo xamante ni bi nas ci suuf rek la ñuy def seeni mbir luñ ko feeñal ci kaw li ñuy feeñal ci kaw ak li ñuy nëbb ci suuf day wute loolu lañ mel ahlu xadar lañ wa makr loolu kon taxoon Saddam saa buñ ko jéemee def yu mel noonu mu rëq seen digg waaye jiite réew ma léegi kon nga gis yooyu nga xamante ni yu yu fa yu fa yu fa yu fa nekkoon la mu tegoon ci tànkam ci anam boobu bañ ko fa jëlee daal di koy jàpp ñu ne ci ñu jël ko jox ko ñooñu nga xam ne ñoo doon ay noonu démbam ñooñu jël ko daal koy pendre rey ko ci bisu tabaski muqtada sadr ci boppam moo ko jiite kenn ci ga ci kilifa kàngaamu chiit yi moo ko jël ab jullit nga jël ko Saddam eh, borom fit la. ndax biñ ko jàppee boo seetloo jamono yi nga xamante ni ñu ngi koy jéem a jugé di ko indi seen tribunaux yooyu kaamil alxuraanam la yor su juge bi waxee mu joxor bi ko ne ko yow amoo sañ-sañu toog fi naan da may jugé man maay président wu Irak Irak yow yow kenn falu la amuloo amuloo amuloo amuloo fii légitimité pour ñëw naan da may da may jugé da may àtte waroo maa mën a àtte loolu la leen dox di leen joxar bi te xamoon nañ dañ koy rey. ñu àtte lu leen neex waaye mosul déngi déngi ci loolu ba biñ bi ngi koy ñëw di ko di ko di ko ne dañ koy pendre laa ilaha illa la doon wax ñu naan dañ koy dañ koy dañ koy jéem a déstabiliser ak yooyu di ko perturbé waaye tudd yàlla lañ la mujjee wax ba dañ ko reyee ñu jël ko rey ko ci bisu julli ñoom ñooñu ñoom chiite ñoom ñoo ko jël daal koy pendre léeg wala lay wan seen soxor fi mu toll seen diggante ak jullit yi saa bu ñu jekkoo jullit yi ahlu sunna noonu rek jàpp di yeew di di pendre rek comme ni ñu doon def Iran Iran Iran bi ñu defee seen révolution bi nga xamante ni bi tubaab yi ñoom ñoo leen ci ngemb de A à Z Khomeini nga xamante ni bi pion wu tubaab yi la woon bi muy ñëw di def révolution boobu avion bi ko indi jóge France télé ko France ba nga xam ne fa la nekkoon ak séjouram nekk ci Donkasigem avion wu Air France la moo ko indi ni cëpp mu ñëw di def Osama Ben Laden Air France dina ko jël di ko wàccee ci am réew mu fay ñëw di def révolution loolu xel sax xalaat xel xalaatu ko sax xel sax nangu ko waaye noonu lañu def biñ ñëwee ahlu sunna yi fa nekkoon nga xamante ni communauté bu am doole lañu woon Iran nee nañ sax ñoom ñoo nekkoon majorité ci Iran ñoo fa ëppoon chiite yi ñu commencé leen jàpp di leen faagaagal lan lañ doon wax dañuy jékki-jékki di àtte nit ñi ci ne wàllu ngëm-ngëm ak wàllu gis-gis ak pas-pas boo ci àndul ak ñoom ñu daal di lay tuumaal jël la daal di lay rey jël nit ñi di leen. yow ci mbedd mi di di di pendre ci mbedd mi jàpp ahlu sunna yi di leen rey noonu lañ reyee ñi ci mën a rey ñi ci des daw génn réew ma léegi daanaka réew ma de doo fa dégg ku koo xamante ne ci ahlu na la bokk ndax ñëpp rey nañ leen bañ jeex nanguñ leen fa bàyyi ñu am fa jàmm dund fa ndax réew ma seen réew la kon ñooñu nga xamante ne bi noonu lañ mel nekk ay nit yoo xam ne ku leen jàng jàng seen histoire xam seen relation ak jullit yi ci histoire di nga xam ne amul secte bu gën a dangereux chiite yooyu ci secte yi askanewoo ci lislaam Saddam yàgg jàppante ak ñoom ñu jël réew mi biñ ko reyee dem jël jëm jox leen ko ci lañ commencé jàpp jàpp jullit ña fa nekk ahlu sunna ya fa nekk di leen rey di rey seen boroom xam-xam yi di rey seen kàngaam yi mu jur fitna loolu moom moo indiwaat Daesh Daesh mën nga wax ne daanaka fippu la. boo xamante ni bi lenn ci ay bi yi nga xam ne ay tribu ahlu sunna la ci tàmbali bi fépp woon nañ ko pour rey yooyu dakk ñu commencé ko di xeex mu am infiltration boo xamante ni ay nit infiltré demuñ ci daal di jël xeex boobu daal di koy jox beneen cuub yóbbu ko ci wàllu jihaad boobu nga xam ne ci façon bi ñu ko defee te teguwul trop ci xam-xam ba mu mujj jur li nga xam ne jur na ko loolu fa tuuru ci ay deret ak problème yooyu fa am yëpp ñan ñoo ko jur ñaata nit ñoo dee ci Irak ci conflit bi am foofu depuis bi mu commencé ak léegi ñaata doomu adama réew nga jàpp ko toj ko ba mu mokk mbox loolu laalaale tamit Syrie gox boobu yëpp ñu ñu yàq ko te lan lañ fa jële dañ fa mujj retiré wu bàyyi ko ci loxo ñoo xamante ni Saddam moo leen gën fuuf du sax seen moroom ñoom lañu fa bàyyi kon lan lañ fa def lan te loolu yëpp ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi sukkandikoo ci 11 septembre bi. kon 11 septembre bi nga xamante ni am na ñu sukkandiku ci jaxasewaat àdduna bi jox seen bopp sañ-sañ dal ci kaw jullit yi dal ci kaw monde musulman bi traité leen de terroriste stigmatiser jullit ñi fitnaal leen tooñ leen ci loo xam ne teguwul ci kaw benn dëgg te du rek euh, xeet bi nga xam ne mooy xeetu lislaam lañ njëkk a tooñ wallahi occidentaux yi ñu tooñ ci àdduna bi nangu seeni alal tuur seeni deret foqar ñi seeni am-am def lu leen neex ngir ñoom li ñuy dund nii ci kàttan ak gëna noot àdduna bi ñu koy mën di continuer di def kenn xamul nu mu toll te ci loolu lañ dëkk te itam jeexagul ndax saa bu seeni intérêt menacé woo ñu commencé waat jëfandikoo kàttan ak pexe ak ngeen baal ma ci wax ji caay-caay te fi mu nekk xiiru bi ñuy xiiru ni Chine di ko xiiruwaat Russie ndax Russie mi ngi ñëwaat. loolu euh, firnde la ci te soo moytuwul dinañ fi indi problème ba laale ak ñoom surtout Chine ndax mënuñu supporter ku leen détrôner ci wàllu kàttan ci àdduna bi mënuñu ko nangu surtout américains yi dinañ ngemb européens yi ñu ànd ak ñoom ñu ñu ñu ñu fexe jéem a jaamaarloo ak ñoom tooñ biñ tooñ jullit yi tooñ la boo xam ne yàlla du ko neenal yàlla du ko seetaan tooñ nañ ñu yàq suñu der fitnaal ñu bunnu ñu wan ne ñun ay nit yu bon lañ dañuy reyaate dañuy dem di tuur ay dereti jàmbur dañuy def nangam te amul ku ëpp jàmm jullit ci kaw suuf amul amul benn diine wala benn ngëm-ngëm wala xalaat bu nit di topp bu ëpp jàmm lislaam bu gën a laa biir bu gën a lewet lislaam jàngal histoire lislaam jàngal bi lislaam di am kàttan di gouverner àdduna bi mosul jëfandikoo kàttan di def comme ñoom nit ñi def ñi daan dund ci suufam diggam jeneen yeneen i diine xoolal lan la leen joxoon ci liberté demoon na ba ay jamono ñoo xamante ni nekk ci beneen diine di dund ci suufu lislaam ñu bokk ak ñoom diine ñu bokk ñoom diine ñëw xeex ak jullit yi gouverner woon suuf yooyu di ko nangu ci ñoom ñooña noona di jàppale jullit ñi pour jullit ñi bañ a ñàkk suuf yooyu ndax xam nañ ñi li leen jullit ñi di nangul ci ak niñ leen di jàmmale seen mbokk yi ñu bokkal diine sax bu ñu fa ñëwee duñ leen ko defal loolu jàngal histoire l'islam di nga ci xam dara léegi tooñ yooyu kon yàlla du ko neenal moo tax lenn li feeñagum mooy toroxal toroxal gi leen yàlla toroxal ci Afghanistan waaye la ca gannaaw moo ngi ñëw te képp kuy seetlu histoire empire yi ak seen seen seen daanu gi nga xam ne dinañ dem ba jamono ñu daanu ko di nga xam ne li nga xamante ni américains yi def nañ ko ci 11 septembre bi dëgg ci sukkandiku ci jaay doole àdduna bi dal ci kaw communauté boo xam ne ay milliards lañ ci àdduna bi fitnaal leen bu nu xatal leen dem ci seeni réew tuur seeni deret euh, def leen ay tooñ ay injustices yoo xam ne yu méttee méttee métti la médias yi ànd ak ñoom ci loolu di ko justifier chaque jour ñu nekk fi di jooy ci lim boo xamante ni naam benn bakkan bu tuuru sax bari na waaye mënoo sax comparer ñoom attentat yi li ñuy wax ne dee na ci ci ay nit ak massacre yi nga xam ne def nañ ko fu mel ne Afghanistan wala fu mel ne Irak wala fu mel ne Syrie mais ay millions yu doomu aadama ñoo ñoo fa faatu mais fan lañ teg bu ñu reyee benn américain àdduna bépp jug ñëpp nekk di ko wax ñuy jooy indi ay woykat ñu koy way di ko tristëral di ko xalamal ci tele bi nit ñi di jël ay mouchoir bu ñu demee Afghanistan rey fa ay centaine de milliers d'individus ay xale yu ndaw am na benn time bu fa nekkoon benn équipe bu fa nekkoon boo xam ne ci seen euh, xaw ma ban kii la mais ci seen boys yi la mooy seen militaire américain yi ñooñu après dañ leen bi ñu defee enquête noonu wax kii ne dañ leen di sanctionné kii sanctionné wuñu dara ñooñu dañ doon wër di jàpp ay xale yu ndaw yoo xam dañuy daje benn xale ci mbedd mi jàpp ko jël ko rey ko di photo wook moom jël ko dagg ay loxoom téye ko di photo wook moom jël xale teg ko jël benn grenade tegal ko ko ci ay suufu tànkam dem taxaw fale di ko photo pour mu exploser ci kawam mu claté xale bu ndaw boo xam ne nga dajeek moom ci àll bi bu kalaatee kii ñëw jël loxo bi di photo ak moom kii jël tànk bi di photo ak moom mais atrocité yu mel noonu kan moo ko mën a def ci àdduna bi américains yi ñoo koy def ba noppi wër wëlbatikuwaat ñëw nekkaat ay donneur de leçon nekkaat ay gendarme ci kaw nit ñi nekkaat ay ay ay démocrate ci kaw nit ñi ñu leen di tàccu naan ñoom ñoo dañu am liberté dañu am démocratie mais liñ def ci ay ñaawteef ci ci dëkk dëkk dëkku jàmbur yi ñu dem kenn xamul nu mu toll. léegi nag 11 euh, septembre baa ngi noonu seetaan leen télévision yi xool leen li nga xamante ni moom la ci gars yi di waxati ci propagande beeg yu mel noonu euh, ñun jullit ñi noonu lañ koy jàngatee mais liñ ciy xamee mooy incha allahu taala teel na yéex na. conséquence su tooñ yi nga xam ne tooñ nañ ko jullit yi wallaahi laazim dinañ ko gis toroxal gi leen yàlla toroxal Afghanistan loolu lenn la ci rek mais la ca des incha allahu taala ku yàlla may ci ñun fan bu gudd dañ ko gis kon foofu la ñuy taxaw ci liñ ci mën a wax ak luñ ci mën a jàngat di delloowaat suñu lépp suñu borom subhaanahu wa taala di wax ne jaamaarloo diggante kërug dëgg ak kërug caaxaan moom dafa yàgg. ñoom nag fi mu nekk nii dañoo naagu yor nañ kàttan yor ay pexe lu ne ñu ngi koy jëm mais yàlla lu seetaan ñi nga xam ne ñoo ay gaawam donte yow mii xool te yàkkamti te xooluloo fu sori xool ci li ñu tuddee mujjantal ya lu ñu tuddee an nazar ilal maalaat wala awaqib boo dul xool ca mujjantal ya mën nga dem ba benn instant nga xaw a juum ci ni ngay analyser mais del xool fu sori del xool fu sori boo xoolee fu sori rek di nga mën a comprendre li ñuy dund tey nii ak li ñu dund démb inchaa allahu taala hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah